bisam bisaa bu dikkee mooy. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ànd ak ñun saa su ne ci caravane Magal Touba édition 2019 ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziara bu baax a baax di rafetlu nag saa su ne ànd bi ngeen ànd ak ñun ñu ngi fii ci njaareem suñu troisième étape caravane bu ren bi ñu ñëw nag ci kër Serigne Modou Makhtar Mbacke ñu gën koo xam ci Serigne Afia Mbacke nekkoon rakk ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax ki xam ne moo di Serigne Momar Anta Sali mooy waajuram wu góor mu nekk koo xam ne ku déggoon la ak Serigne Touba toppoon ko àndoon ak moom liggéey fi liggéey bu am solo waaye it am taarix bu am solo boo xamante ni bàyyi na ko fi loolu lépp incha allah ñu fas yéene koo visiter waaye it daañu dem ba tooki maanaam Afia foofu nekk ay tool yoo xamante ni toolu Serigne Afia la woon loolu lépp incha allah daañu ko visiter waaye bi ñu fi nga xam ne moom moo di ci njaareem ci kër Serigne Afia ñu fekk fi xalifaam di Serigne Saliou Mbacke ànd ak mboolem jabatuk Serigne Afia gi ñu fas yéene fi amal waxtaan wu am solo ngir ñu xamale ñu ak jëm ju tedd googu nga xamante ni rakk la woon ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou sol donc mbokki téléspectateurs yi ñu ànd ak yéen ci seen troisième étape caravane Magal Touba édition 2019 fii ci kër Serigne Afia Mbacké ñaare ngi yoo moom la bëggoon mooy màggalam géeg jumaa ji yaari yëf yaa ngi jumaa ji nag jëmm jéey mat waaye col gi du mat te mbubb sax dañu koy fóot yeesalam gaa ngi sëñ Babacar jaxatee tam am na lum nu waxoon ndoortel jumaa lu yéemoo yéemu way yaa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 nee na dinañu bég njaboot gi bég nañu njaboot gi bég nañu maa ngi leen jottali loolu nee na mi ngi leen di jottali loolu di jot sëñ Muntaxa di ko jot jottali sëñ Muntaxa di leen xamal ne itam leen xamal ne itam fi ngeen ñëw fii ngeen ñëw barab la boo xam ne barab la boo xam ni li fi nekk ci mbóot li fi nekk ci mbóot mënee su ko wax lépp nee na mënee su ta wax lépp man mënu ma ko wax nee na moom mënu koo wax li ma ci xam rek nee li mu ci xam rek la ci mën a wax la ci mën a wax li mu ci dégg ak li mu ci dégg waaw mhm. ndax barab bi nee ndax barab bi sëñ Tuubaa mi ngeen di gëstu sëñ Aafe mi ngeen di gëstu sëñ Aafe mi ngeen di gëstu sëñ Aafe sëñ Tuubaa moo def ci moom lépp sëñ Aafe nag sëñ Tuubaa def ci moom lépp ndax ba mu ba mu daanaka ba mu ba ba mu matee ba matee dara rek nee na daanaka ba sëñ Aafe matee dara rek la topp sëñ Tuubaa la topp sëñ Tuubaa di ko liggéeyal di ko liggéeyal di dem ci àll ba di dem ci àll ba ànd ak murid yi ànd ak murid yi yorub naawal yorub naawal naawal naawal naawal boo xam ne sax saaku saaku la daan doon saaku. nee na naawal boo xam ne sax saaku la daan doon. di ànd ak taalibe yi. di ànd ak taalibe di liggéey. di liggéey. daañu daañu liggéey sax ba xiif. nee daana liggéey sax ba xiif. du gis lu ñu lekk. gis lu mu lekk. ñu dem ci jànj. mu dem ci jànj. rukk ko rukk ko. di ci xéewlu di ci xéewlu. xéewlu si ba dëgër. nee na bu ci loo ba dëgër. delluwaat ci liggéey Sëñ Tuubaa. delluwaat ci liggéey Sëñ Tuubaa bi. kooku nag ku gëpp taalibe. nee na kooku nag ku gëpp taalibe. yaa ko xam. yaa ko xam waaye moom xamu moo tax nee na moo tax. bi Sëñ Tuubaa nekkee fii. bi Sëñ Tuubaa nekkee fii. daana jekki ba dégg guddi. daana jekki ba guddi jot. ba dégg guddi daana jekki ba dégg guddi ba suuf sedd. daana bàyyi ba suuf sedd. mu ànd ak ay taalibe. mu ànd ak ay taalibe. seet si Sëñ Aafe. seet si Sëñ Aafe. te li muy wax ñi xam nañ te li muy wax ñëpp xam nañ Sëñ Aafe itam. nee Sëñ Aafe itam. Sëñ Tuubaa daana jekki ba guddi. Sëñ Aafe daana jekki ba guddi. mu yónnee du ko woolu. mu yónnee woolu. seen diggante seen diggante. ku cay wax ku cay wax da nga cay wax tuuti rek da nga cay wax tuuti rek da nga cay barkeelu da nga cay barkeelu waaye doo ci mën a wax loo xam waaye mënoo caa wax lu ëpp dara waaye xam naa bu ngeen demee ci gone yi waaye xam naa bu ngeen demee ci gone yi bu ngeen demee ci gone yi daañu leen mën a leeral la dinañ leen mën a leeral lu bari loo xam ne lii lu bari loo xam ni lu mel nii la lu mu bàyyi la noonu lu mel nii la lu mel nii la rek lu mel nii lu mel nii rek gone yi dañ ko mën a wax waaw gone yi nañ ko mën a wax ñu ngi leen sant bu baax nag mi ngi leen di sant bu baax ci liggéey bi ci liggéey bi ak taxawaay bi ak taxawaay bi ak euh, ni ngeen ñëwee daal. ak nii ngeen ñëwee daal. waaw dañu si métti rek. ne li ñu ci métti rek. mooy naaj wu tàng wi ngeen dox. mooy naaj wu tàng wi ngeen dox. loolu rek moo ñu ci métti. ne loolu rek ko ci métti. waaye ñu ngi sant bu baax. waaye mi leen sant baax di leen ñaanal. yàlla may leen ngërëm yàlla may leen ngërëm ngërëm suñ tubaa ngërëmul suñ tubaa yàlla leen ko yàlla may ndax mbooleem ñun ñëpp ndax mbooleem ñun ñëpp ngërëmul suñ tubaa rek la ñuy la ñuy ñëpp ñun ñi ci waay di yëngu rek ngërëmul suñ tubaa la ci sàpp kon mi ngi leen koy ñaanal ngeen santal ko sëriñ bi ngeen santal ko sëriñ bi te xam ne daal lii moom te xam ne mu ñu lu jul moom li xam ne moom la moom la am lii ñu am lii ñu am ñun moo ñu ko jox moom sëriñ bi moo ñu ko jox te lii rek te lii nag la ñu am lan moo am. muy sëñ muy sëñ ku ne la la yàlla la la may rek nga am. kenn ku ne la la yàlla may rek nga am. gannaaw gannaaw sëñ Afe ci lañ bokk. ñun nag ginnaaw bu sëñ Afe ci lañ bokk. waaw ah, mu jox mu delloo ñu sëñ mu delloo ñu sëñ Afe. ñu ngi ko sant bu baax di ñaanal ngi koy sant bu baax di ko ñaanal. tubaarkàlla tubaarkàlla. ndax lii nag mooy luy defar mbir wax naa ko léegi ci sàll dama leen ne gis nga yar rek mooy yàq mbir mbir moo gis moo yàq yar ko yàq mooy dugal ko ci bokkul ak génne ko ci bokk te Serigne Touba ni mu liggéeyee ndax bala ñu waxtaani Serigne Affe yi mu nàmp ak ki ko nàmpal ak fi mu ko nàmpe il faut loolu gis un la boo xam ne yépp ndax Serigne Touba dafa noppi ci ñëpp ndax kenn ku nekk def na ci yow loo xam ne ba nga ba mu jëflanteeg yow ba noppi jëfla ba nga jëflanteeg moom ba noppi jëflante naa yow ci jëflante boo xam ne ba muy jëflanteeg yow ku doon wax amin sa néew mu mel ne kenn ku ne ba muy def ci yow sax la muy def ci yow ba mu koy def ci yow mën naa am sax yaa ngay xaram kon Serigne Touba. liy firndeel ne ba tey liggéeyam loo xam ne lu mat a bàyyi xel ci mbir mi mooy su ma di ko wax mboolem kàngam yi ko encadré woon kenn ku nekk war nañoo taalif ci yow wan sa jeex wane sa jeexi ak yaay kan def leen na saaba yi ndax yo saaba yi ñoo feeñal liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mënoo wacc mënoo waxtaane yonent bi boo doon te te tuddoo saaba yi ndax boo doon wax balaw oxot mbooleem ñu àndoon ak yonent bi kenn tey bët bu set saa yoo ubbee téere bi rek gis saaba boo xëyee mosoo ko dégg daanaka te loolu day wane day wane mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ku ne xam na ne tu Touba du benn kaas képp kott dong kenn ne ko deng naan di xool say morom loolu mënta ne lépp ma kawe. Serigne Touba lépp ma kawe xam nga fu ma ko teg ko bu ngeen ko xoolee ci def ci euh, ci liggéeykati aar yi képp liy tegtale ne liggéeykatu aar man na li muy def lu liggéey lu ne rek da nga cay gisul ràññi bu ma mel ne beneen bés la doon koy fàtte te léppay ràññi kon day wane liggéey bi Serigne Touba amul lu suufe lépp kawe yàlla xamul lépp jëm kaw mën ngaa bañ a xam nag ko mën ngaa mën ngaa xam kii uppali ka ca des rek waaye ñëpp jëm kaw su ko defee nag mu mel ni kenn koo ciy waxtaane bu ñu lay diglu gàtteem xel sax dañuy jàpp ne kat kii moo yor lépp te fekk déedéet Serigne Touba rek la moom moom moo demee noonu ci ci liggéey moo demee noonu ndax lii mu yor keneen ku ko yoroon tudd moom li nga yor lépp boo wut say doom nga ko jox ñi te soog seen ginnaaw kon euh, moom rek moo mën a jël Serigne Touba. te it nii la ko bëggee léegi nag comme yàlla dafa dogal waxtaan waxtu wi dafa xaw a gàtt dañuy taxañ rek ma am ab ñamali bu ma leen di defal ci sañaafe rek maanaam li liñ naan maa laa yudraku julluhu laa yudraku kulluhu kon xullun la minal kusri lu tuuti la lu bàyyi ko ci lu bari ndax ci ku tedd ki la maam Cheikh tey nag dañuy def dañuy dañuy def xaarijul mawdu mooy hors sujet déedéet ndax keneen ku ma fa boot la taxaw taxawaayam tey di wax da nga yaakaar ne moom dong la kenn ku ne am na xusuusiyaat maam Cheikh Afel tey moom tey moom moom moomum géew bi mu nekkoon lagg moo xëy ci biir géew bi ah mat naa xam de ndax li ma ci bëgg njëkk a leeral tim doy daanaka sëkk bind kenn ku ne am na loolu la waaye sëñ dafa am lu kenn amut moom itam ku dul sëñ Afia dangaa gënee feneen adduna ñëw ci sëñ Touba mu yar la mbaa nga gënee adduna ci sëriñ Touba dem feneen ñu yar la mbaa nga gënee sëñ fi sëñ Touba adduna mu yar la eh, eh, nga nga màggee fi moom waaye màggatewoo fi moom la waaye sëriñ sëriñ Afia képp kott dong moo gënee adduna ci sëriñ Touba sëriñ Touba yaral ko boppam mu màgg fi sëriñ Touba ba màgg ci sëriñ Touba ñaareel ba yàlla aar na ci doo gis mukk koy kayiti kayiti di ko tuddoo mm-hmm. loolu yàlla musal na ko taxoo gi nga xayante ni bii nag li Serigne Touba taxoo woon ak moom te mësta teqali ko ak moom ku dul Serigne Touba ku dul sa ñaafe am nay jamono yoo xam ne yaag bi leetara daan dox seen diggante kon nag moom taxoo googu ci loolu nag ci riñu tuuti kéemaan yi dama koy bàyyi fee ndax kéemaan bii su ko roy bu ma leen newoon ku ko rek kéemaan di su ko roy kon te am na yu flagrant tamit yoo xam ne daanaka duma ci jaar ndax ku toll ni Serigne Affe di rakk Serigne Touba junne rëkk ci moom nga xam ne moom képp moom mas ne sami allahu liman hamid Serigne Touba ne rabbana wal kalam te loolu it nañ ci indi ay preuve de xam na mu farakati na ndax réew mi dañoo nekk ci réewum firi looy wax na kuy firi ñu ne tegal dara ci table lam lu ko mooy dañ naan sët bi waxtaan ci maamam su ko defee ànd gi mu àndoon ak moom moom sëñaar mësta mësoo dégg ñu ne maama ma ko yar nekkul mësta nekk kër maamam mësta nekk kër nijaayam mësta nekk kër bàjjanam mësta nekk kër bàyyit benn taxam ci Serigne Touba la masa ne depuis ca ba mu nekkee Mbacke Kajoor bi fi Mamour Anta Sili ji jóge booba baax na mën nañu si fukki at làmba fukki at ak benn te ku ne xam ne ne sëriñ Touba wajur bu baax ba Mamour Anta Sili dénkoon na Serigne Touba njaboot yii ni leen yaar li ma war a def ci ñoom ci xam-xam des na li ma war a def ci ñoom ci yarit des na ma bëgg nga taxaw ma ci Serigne Touba dagg ko mu dénk ku jëmmi boppam ji. Serigne tubaa gàdd ko mu ne ko damaa bëgg bu ma fi jógee deqale mu Serigne Touba gàdd ko moo tax damay wax ne Serigne Touba ñeme gi mu ñeme responsabilité jar naan def moom dafa dafa ñeme njaboot moo tax sëñ Afia Serigne Touba ko yàgg na ko jamono bu ñëwaatoon jamono yéen ñëpp mën na ko man tudd naa la sa wàll ndax Mbàkke Kajoor googu ba fi Serigne Touba di jóge di ñëw Mbàkke Bawol sëñ Afia laa dalal. Soxna Anta Njaay ba mu jógee ba sañ ci Daaru sëñ mook sañaar ba mu fa jógee bay sañ ci Tuubaa bari na lu daan ànd ak sañaar bi ci wër boobu mu daan wër bañ di ko wëri ndax loolu dégg naa fii ci njaboot bi sëñ Abdou Karam nettali na ko ne sëriñ Afe xam na benn su ma ànd ak moom di doxal ko foofu ci pays bi mu ne ko fii de boo gisee barab bi ma miin ko day barab boo xam ne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ma sunu mag bu baax ja bu ma saan doxantu doxantoo boobu doxantu doxantoom boobu léeg-léeg man mii la daan àndal ba bi muy wër Touba keroog ba mu koy gis man mii la àndal mu ne mu ànd ak man ba ci bët bi mu ne ma toogal fii xaar ma Serigne Touba duggal boppam ci àll bi ne medd ba yàgg mu génnaat ñëw bi mu ñëwee li mu mu metti ak mbitti li wax ne dafa am haatif bu ko wax ne ko la nga doon wër ma nga fa nga bàyyi si nguur sa sañaa sëñ sañaa fe nee na keroo sëñ tubaay ku ne def na ko sujjóot ne def na sujjóotu sukri def na liñ naan euh, euh, maanaam julli def na lépp te loolu xam nga silsile la dama ne nee naa la ñetti liw ma de lenn dama lay wax fa ma ko jëlee bi muy dem Gabon laps de temps boobu la teqali ko sëñaa bi ci zahir waaye dafa waaye teewut moom daal di ci daal di ci ndigal ngën ji métier ndax yonent bi nee na xayrukum man ta'allama al-Qur'an wa ki gën ci yéen mooy kiy jàngale ak jàngal ko wala di ko jàngale moom daa nekk Daaru Salaam nga xam ne Serigne Modou Mamoun ak génération yëpp Serigne moo leen jàngal mu xaar ko fi Serigne Touba ba Serigne Touba ñëw bi mu ñëwee ba muy dem gànnaar Serigne Afi moo moo jiite woon am na lu ma ci karmat fii léegi. loo xamante ni bii sëñ Moussa Ka man du saa yox si ña si moom moo ko jiite woon mu ne ma wax la gaaye santu ja santu dàmm jëm gànnaar ànd ak Serigne Touba te ñëpp ay jàmbaar nga wax bi de mu ne njëkkee Serigne Enfer rakkam moo jiite loxoom Serigne Mor Penda loxoom Serigne Mamar Penda bi woote xasida ah, bu yaatu la boo xam ne sëñ Moussa Ka bëmbëstal na ci yoon wax waaye li ma bëgg a sétiyee foofu war la ne loolu du samay wax li nga xamante ni bii de moom laa bëgg a bàyyiloo xel foofu benn benn mun a xas a xëmm bët bu set ngay gis koy waxtaane gànnaar waxtaane gànnaar ba gànnaar geex te doo dégg ñu tudd sa ñaar ci koo xam moom moo jiite woon gànnaar dem na ba gis nga euh, euh, kii euh, Cheikh Sidiya Baba am na xaside bu wér bu mu def ci sa sa ñaafam boobu danaa leen ko jàngal ñu ngi nii Cheikh Sidiya Baba ak génération yëpp foofu li leen sa ne nga xam ne buñ masaan fekk si fii Serigne Touba naar yi fii ci kër gi la leen Serigne Touba daan dalal ba jamono yi Serigne Fallou ci xilaafa gi sax am na ci naar yoo xam ne seen kër seen xaas lañ doon dalal gànnaar noonu la fa nekkee woon mu Serigne Touba mos ñëw taxali ko ci Zahir léeg-léeg li ci ëpp naafile yi da ko daan jiite at yu bare bare bare bare bi mu fi jógee mu ñëw Jolof Jolof it daa dund Jolof ba mu jeex te gànnaar kat dama leen di xamal ne booba dem gànnaar yombul ndax booba mën nañ leen gànnaar mooy Dakar bangu rek dafa metti waaye sëñ Afia foofu la ko dundal moom bopp ja te mu jiite woon yoon wa te ba Serigne Touba yi moom la àndal de euh, sëñ Moussa dem na ba andi bato ba nam tudd ci way wa bi mu ñëwee Jolof nekk dafa ak Serigne bi boo gisee yu bari ñu den ko wax dama ciy dégg léegi xisa yoo xam ne ñoo ngi koy nettalee feneen te ci sa yàlla moo tax nettali gi day baax te sukkandiku wat samay waxi bopp bi yàlla dogalee mu jóge Jolof ñëw njaareen gii fii du woon kër sëñaa bi bu jëkk sëñaa ci biir kër gii gopp gu mag gii la nekkoon bari na ci ak njobootam ñoo xam ne fii lañ gënee àddina sëñ Abdou Karim ci la ak ñeneen ba mu fi nekkee Serigne Touba di ko jëf fa mbiru biiram yu bare bare bare bare féetale ko ko ndax da nga gis njaarim it da ñu baree bari dana ñetti njaarim ba mu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk boo dégg ñu tuddee Serigne Abdou loolu mënta ne man damay jàpp ne képp kuy wax ci Serigne Touba sax boo boo boo ci booliwu sa jàng damay xam damay jàpp ne maanaam sa xam Serigne Touba maanaam des na des na ñaar ñu nekk fi barab booy waxtaanee kenn ki dootul ko jël mukk ah loolu xëy mën ko nab rek kon njaarim Serigne Afia dafee saf-saf ndax xam ngeen ni li ko Serigne Touba doon doy fi am na lu ko fi doon doye xanaa sëñ yaa fi nekkul nekku fi woon saa yu xëy rek di wàññi photo ah loolu xel mënu ko nangu man mii di sotam sax bu ma fi newoon tey ñu bëgg fee nekk di wàññi photo dama naan sëñ bi ñaanal moom dem sotti addiye ah, ah mu fi nekkee nekk na fukki at ak juróom bari na lum daan jiitalu lu yaa feetam ci jàkk ji loolu dama leen ciy wax ay preuve ndax réew mi li may wax réewum firi la ndax sëñ Moussa Ka bind na ko ne sëñ Afi Mbakke borom bi kii man Bàmba ko seexal dellu def ko yilimaan te loolu nee na la Cheikh Sidiya Baba firndeel na ko ci way yu moom itam ndax daf ne aqul xadimi wa xibbu cheikhi saaxibuhu wa cheikhu alahu min tilka alfutuhaati cheikhun karimun azimun fardu maljaina faaqal akaarima fi jëmmi wilayaati ay cheikhu aafiyati almuxtaari sayidina wa huwa al-imaamu alladi faaqa al-bariyati nuurun muniirun wa abqaa al-qawma kullahumu maa zaala fi l-qawmi misbaaxa d-dujunnati yaa sheikha aafiyati al-muxtaar sayyidana annaa ka mislika min ahli l-maqaamaati wa huwa al-waliyyu al-aliyyu al-muctamaa wa lahu kanzun laqad azza arbaab al-kusuufaati loolu sëñ Abdourahmane nee moom la mooy kon. pour mën leen ko gëmësalal ci prix mboolem yuy ndombay tànk ak baax ak nangul yàlla ak nangoo doonub taalibe ndax nangul yàlla ba noppi nangoo doonub taalibe daa jafe de bii nga yor ci xaqiqa shariatu bu sa càmmoñ bii nga yor ci xaqiqatu munawara bu wér ah loolu yombul de te foofu la noonu moom ko nangul yàlla moom daal nangulul sëriñ kon imaam koo gi kon ñaar ñooñu firnde nañ ko am na ci loo xam ne man loolu doy naa ci doy naa ci misaal ndax dañoo wax ne njuuma du ne jom jom ñu netaal sama maam mi jur sama baay soxna Xadi Sëy bu ne nag jigéen nga tax doo gëm yi waxam déedéet ndax dañoo wax ne ci biir kër moom jigéen la ñuy laaj bu dee ci bitti kër nag góor la ñuy laaj te Sayyidatuna Aïcha bari na lu mu nattali ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te saxaaba yi dañ koo gëm ni ñu gëmee alxuraan te bari na nga xam ci yonent bi sax ci moom lañ moo lañ ko xamal mooy nett li may dégg bu dul benn du ñaar du ñett mu ne mbooloo mi dañuy tirim mu ne ko sëriñ mu ne ko mbàkk mu ne ko ci kanam sa ñaafe dox ci kanam ñu julli ba noppi mu ne ko sëriñ mu ne ko mbàkk mu ne ko sa jàkkaangoo loolu sax jaaxaloon na ma ci sa jàkkaangoo ndax damaa gis man njëriñ jumaa laa fi gis ba noppi sax man man jàkka ndekk ginnaaw bi laa xam ne ndekk jàkkaa fi amoon jumaa ji ginnaaw sëñ bi lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko julli ginnaaw sëñ bi lañ julli jàkka jumaa ji maam Thierno ñëw ñu julli ko ba noppi mu yëkkati bi joxaat joxaat ko sëñ Afia xam ngeen ne maam Thierno moom lépp lu sëñ def jaay jaay si lu sëñ Tuubaa rocci bu ca moom day gën di namm rek muy muy gën di ñaw noonu la def. daal ko daal daal di teg daal di tegaat buum ca booy booy ba rek moom maam Thierno Birahim radiyallaahu taala